mooy yërmandeeg askan wi askan wi sonn nañ xiif nañu Mbàkke ba laay sax danoo am njiit bu saay-saay muy Macky Sall mii yaakaar naa ni ba tey lii Macky Sall def da ngeen koo yëgut moo tax damaa gis loo xam ne da ko def nga jëmale ko ci Ousmane Sonko te loolu ci Macky Sall la jekkoon lii nii da ngeen koy war a def yow war nga ko def Serigne Mbaye Sy Mansour mu ca Tiwaawoon yàlla na yàlla ku guddal fanam si Malick moom it dafa war a dafa war a def lii sëriñ si ngeen jàppale ñu ngeen dimbali ñu ngir yàlla ngeen def lii wax dëgg fa yàlla li nga def ni Ousmane Sonko mérito wu ko de Mbacké Balaye sax xam naa ni yëgu loolu xew lim ne Ousmane Sonko moo taal dëkk bi ku leen ne Ousmane Sonko moo taal dëkk bi waxu la dëgg mbokk taalibe xam nañ ci dara waa Touba yi xam nañ ci dara waa Tivaouane xam ñëpp xam Sénégalais yi danoo sonn danoo mar gis ngeen liñ leen di wax politiciens yi waxuñu leen dëgg bëkk néegi ñi ngi seen wet maanaam te waxuñu leen dëgg waxuñu leen li am nan leen wax li am Mbacké Balaye sax ñii waxuñu leen li am gis ngeen wallaahi tallaahi Macky Sall lépp lu tàkk ji dëkk bi ci ñoom la jaare coowal Adji Sarr Mbàkke ay Aysa bu fekkee xamuloo nu mu demee coowal Adji Sarr ay sos la ñu jël ko teg ko ci gone gii di Ousmane Sonko Ousmane Sonko doon nit ku set ko xamante ni si Mbàkke yéen war ngeen ko jàppale ndax ni ngeen li yéen ndax li nga wax nii dafay yàqal de Mbàkke ay sa lool nga bàyyi ci xel te taalibe yi xam na ni Ousmane Sonko mii maanaam nit ku set la toppewuñ ko ngir tarixa toppewuñ ko ngir dara Ousmane Sonko dafa nekkoon impôt et demande di fa liggéey Mbacke Balla Aïssa mu doon ko am day xeex xeex bi Cheikh Anta doon xeex xeex bi nga xam ne Cheikh Amadou Bamba da koo doon xeex Alaaji Maalik jóg xeex Baye Niass di ko xeex ñun Sénégal dañoo sonn dañoo fatt ay saay-saay jiitoñu Mbacke Balla Aïssa Macky mii yow ci sa passeport bu fekkee te ni sa sa sa passeport bi nga am yàggut yàggutoo am passeport passeport yi daf ciy bind wàllu góor jigéen yéen seen i seeg yéen Sall bindal ne leen maanaam ci seen passeport yi daf ci affaire pour ngeen xam loolu Mbacke Balla Aïssa Macky Sall daga na la fi góor góor jigéen Mbacke Balla Aïssa Macky Sall lu bon kase lu bon kase la la digal fii ci dëkk bi Mbacke Balla pour ngeen xam loolu dafa jot nag ñuy waxante dëgg watawaasaw bi xaq watawaasaw bi sabri ñii dañ leen di nax Mbacke ñii dañ leen xam naa ne du yow nag dañ lay comprendre waaye xam naa ne du yow mais Macky Sall ñii waxuñu leen dëgg Macky Sall lu yées rek lay def ci dëkk bii Macky sàll fukki gone ak ñeent dee nañ ci coowal Adji Sarr ay tappale la kon ni nga waxee Ousmane Sonko nii Mbacke lii nga waroon taaje Macky Sall mii Mbacke nga wax ko Macky Sall mais lii dafay mel ni Ousmane Sonko moo rey Ousmane Sonko déggul de Mbacke xam naa ne ku moytul information yi du jot bu baax may ñor baax rek bëgg buur yi itam bu téye nguuram la bëgg waaye tegu leen da ngeen ko sàmmi nag delluwul loolu day ne lu sori loo yëpp ko lépp ñu ngi tënk seen jënd ko yow loo a def rek ak loolu si yàlla defal defal lu la ci may may may may may may waaw Mbacke Balaye sax comme li ngay wax nii nii nga waroon taajee makki sàll maanaam teg ko nii wax ak moom façon wax ji ndax lii makki Sall moo ko moom benn bu fekkee bakkanu doomu aadama yu nu tuur Ousmane Sonko tuurul bakkanu doomu aadama beneen bi comme li ngay wax nii maanaam ay seet yàlla ak seet yow mal xiyaam Ousmane Sonko mooy politicien bi fi gën a seet Mbacke koo xamante ni si li muy seet yàlla la ciy seet. maanaam sénégalais yi ñoo ko xool patriote yi mu doon ay taalibe murit doon say taalibe ak i taalibe tijaan ak i taalibe ñaseen ak i ibaadoo ki laayeen ak i xaajar ak i chrétien kek aakee ñëpp ñi nga xam ne dañoo doon aji gëm seen réew ñu gëm seen réew ñu gis ay caaxaan ak tappale gis Ousmane Sonko doon ku dëggu ñu ànd ak moo Ousmane Sonko lii kase moo tax ñu ànd ak Ousmane Sonko Mbàkke Bàlla li ngay wax nii lii Macky Sall la li doon lii ci am lépp lii nii dafa jekkoon ci ngeen def ko ci Macky Sall li ngeen def nii Ousmane Sonko li ngeen def di Ousmane Sonko dafa jekk ci ki ngeen dénk réew mi Macky Sall la ñu dénk réew mi Ousmane Sonko kenn dénk ko dara teewul dara ci réew mi Mbàkke dafa sonn nii ci réew mi nekk di xeexal réew mi di xeex xeexu jullit te sénégalais yi buñ ko waree ba lu ñeneen ñu dul comme ñu gëm réew mi buuma jaam gi dox wallaahi di ngeen yokk torox loolu moom man maa leen ko xamal fii mi ngi nii comme suñu sëriñ si maanaam dañoo yëgut lu xew danoo xamut sëñ bi sëriñ si nit lañ de pour ngeen comprendre loo ñoom danoo yëgul li xew xamuñu li xew comprendre ñu moo tax bu naree dépendre ci sëriñ si dañuy taadeel mbokk sénégalais yi wallaahi dañuy taadeel ndax sëñ bi li muy wax nii boo ko déggee nga xam ne sëñ bi xam yëgul lu xew moom yëgul ni ndekke Macky Sall juróom ñaar fukki gone ak ñeenti yi dee mi ngi dee ci Macky Sall mi ngi dee ci Macky Sall affaire u Adji bi am mi ngi jóge ci Macky Sall tojaange yi nga dégg Sénégal affaire dictature benn journaliste bu ñu jàpp barki Dembo mu ngi jógee ci Macky Sall Macky Sall jàpp kër jàmbor yi di toj Mbàkke Balla Aysa makki Sall li muy def xoolal lii xeexu yërmande la wallaahi Mbàkke lii xeexu yërmande la ni ko bàyyi Cheikh Amadou Bamba waxee woon xeexu yërmande la Mbàkke lii xeexu yërmande la sama gars yi nañ yërëm sunu bopp lii xeexu yërmande la ni ko Cheikh Ahmadou Bamba waxee woon يا مالك الملك يا من جل قواد ارحم جميع الورى يا هاديا رضا ñun Mbàkke ñun ñun mindee fi leen yërëm ni ko Cheikh Ahmadou Bamba waxee hôpital ya Mbàkke Balla Aysa jigéen ñi dañuy matu wallahi Mbàkke lii mooy li am bu ñuy di jaar ci ay sareetu watiir wala ci ay sareetu mbaam ñuy matu ba seeni doom maanaam ñu ñu koy ñuy matoo ci sareetu mbaam ñu dee Mbàkke bala ay sa dëkk yaa ngi taa ci ay ndox nit ñi amuñu lu lekk amuñu lu naan Macky Sall ak i gàngooram kii sàcc na 94 milliards rakkam sàcc na tant de milliards doon réew dictature Mbàkke bala ay sa Macky Sall ay nervi la ñu andil mbake bala Balaye sa Macky Sall amul yërmande ci askan wi doon nit ku bon ku yees daganal na góor jigéen ci dëkk bii mooy li nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba bugg ko woon El Hadj Malick bugg ko woon Baye Niass bugg ko woon Bou Kounta bugg ko woon sama gars yi watawaasaw bil haqqi watawaasaw bi sabri nañ waxante dëgg sama gars yi mbokk sénégalais yi nañu waxante dëgg ngir jëmmi yàlla borom bi subhaanahu wa taala dëgg la yàlla bëgg dëgg moom la yàlla bëgg Ousmane ko mérito wut lii xëy na sëñ bi xamut lu xew mais Ousmane ko mérito wut muy dem ñu koy maltraité lii maltraité la man du question ay gëm Sonko wala Pastef nee naa leen seen Pastef googu dama cee génn ndax problème bi arrangé wu ma du question Pastef du noo bon mais li may wax la ay dëgg man a pour cent dëgg laay demee demee ma cinquante pour cent lu ma yëg laay wax lu yàq réew mi dama ciy duut baara mbokk ak ku mënta doon sama waay nañ waxante dëgg lii nii Serigne Mountakha def nii. mënoon na koo def Macky Sall ak yeddaange lay doon ba taalibe yi dinañ gën a bañ Macky Sall ba taalibe yi dina gën a contre Macky Sall ñu xam ne sëriñ si kat wax nañ dëgg Macky Sall mais Macky bu ñuy wax ak Macky Sall ci suuf lañ koy wax Ousmane Sonko mi nga xam ne defu dara xam naa ni sëñ bi dafa jaawale foog ne Ousmane Sonko moo def moo taal dëkk bi Ousmane Sonko mi deful dara ngeen jël ko di ko taaj ci mbedd mi nii di ko kii lii toroxal nit la man bu ma doon Sonko du ma fi tege ci tànk barki dëkk bii ngeen xam ne seen affaire u taalibe yi gis Sonko bu fekkente ni sa politique bii da nga ci bëgg a dugal affaire sëriñ barki alquran sëriñ si dan lay taareel bëgguñu la loolu moom nga bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax ndax yow benn yaa ngi changé benn appel boo xamante si nga ne nga ne yow fi mu toll nii bu la yàlla falee dangaa bëgg nit ñi nga defal leen ay contrat liggéey quoi comme ça léegi liggéey guddi dootul amati comme nit ñi ñu defal ay contrat di leen kii affaire yooyu sëriñ si la arrangé wul far arrangé wul sëriñ si sëriñ si dinañ dégg lii nga foog ni Sonko ñu lay jàppale nga naan ay contrat sëriñ si li xam bayloo takk jaam duñ la fay dara boo ñëwee ay ñaan la lay tuur mais xamuñu ay contrat loolu boo ko naree def xam nga ni doo dem xam nga ni doo dem laa leen wax dama ne leen sama gars yi nañ dëgg sëriñ sii moomuñu Sénégal benn tariixa moomut Sénégal kenn moom senegal senegalu ñëpp la lii sëriñ sii buñ bëggoon jàppale usmaan Sonko bëgguñu Sonko fayar na dañ ko wane buñ bëggoon jàppale Ousmane Sonko billaahi doy na rek sëñ Mountakha Mbacké ne yéen Ousmane Sonko mii gis naa ci moom jikko ju rafet gis naa ci moom loo xam ne moo fi ñëw ne daara yi Mbàkke Ousmane Sonko moo fi ñëw ne pour daara yi nañ ko dugal sunu langue olof sunu langue maam Ousmane Sonko moo ñëw ne nañ ko dugal ci école yi mu ne sunu langue maam yi nañ ko dugal ci daara yi Ousmane Sonko moom moo ko wax maanaam di jàngale ay xasaayatu ma Ahmadou Bamba di jàngale lu leer di jàngale diine gu leer ñu boole ko ci école yi mu ñëw fekk nit ñi di sàcc di luubal mu ne leen lii di yoon jox ñu ay solution yu baax ba jox leen ay solution pour gàmm ak màggal Touba. bu màggal Touba jotatee ñu xool màggal nga xam ne màggal day doon loo xamante ni si dootul nekkati màggal nii rek mais day doon loo xam day àndaale ak business nga xam ay tourisme mën faa ñëw gàmm bu ñëwee mu def noonu contrôle seen gàmm yi contrôle seen màggal yi moom système bi la contre contrôle musiciens yi contrôle keneen te dëkk bi ay taalibe da ko yoru Sonko dama ni la seen sëriñ yoo affaire sëriñ si nga bëgg doo sa combat bi billaahi dalay tardeel sénégalais yi dama ne leen bu fekkee yéen yéen a ngi gëm yooyu di toog di gëm ay nit kii Sonko murit la war Sonko tijaan la amul benn sens amul benn sens laa la wax ay kii dama ni leen fii së benn sëriñ si xam ngeen li mu fiy doxaleeg ñi dañuy seen taalibe mooy sàcc seen bu sàccee sëriñ bi ne la bàyyi ko fii gis nañ fii maanaam ni mu fa demee am na sëriñ yoo xam tabax nañ fi ay armée ci senegal fii jàpp ay doomu jàmbur di leen dóor rey ci ay nit ñi ñu rey ñi ñu rey mujjut fenn te xam nga ni bu doon dëkk bu normal maanaam de ca ràpp la ñuy def ci kaso ba ndax amul mbàkke amul si amul jóob amul mendi ñëpp benn lañ fii ku fi teguwut ci yoon ci dëkk bi dañ la war a teg ci yoon boo jaree tàllal ñu tàllal la nañ waxante dëgg dëkk bii dëgg moo koy defar dëkk bii du ay affaire diine fii kenn wootewu fi sariha kenn wootewu fi l'islam bu doon sariha l'islam lañ woote kenn du tànn Ousmane Sonko ilimaan yi bëri nañ fi Ousmane Sonko du ilimaan kon ay ilimaan kon la ñuy jël bu doon sariha lañ bëgg bu fekkee te l'islam leen bëgg a àtte ci dëkk bi kenn du wooteel Ousmane Sonko kenn du ànd ak Sonko Sonko lan moo tax ñu ànd ak mbuumuk jaam ko dog yi gis ci seen bopp ñëpp gis seen bopp moo tax seen affaire taalibe yi sëriñ bi Sonko bàyyi ko sànni ko fële sëriñ sii dañuy taadeel ñooñu saraxe barki alxuraanu karim ndax yomb na rek ñii bu doon bëgg nañ askan wi wala ñu am yërmande ci askan wi wallahi tallahi xam ngeen ni kàddu sëñ Muntaxa Mbàkke mu ne Ousmane Sonko yéen taalibe yi ànd leen ak Ousmane Sonko kii gone gu loxo gu set la yor lii la Cheikh Amadou Bamba xeex la doon xeex barki alquranu karim murit yëpp wooteel Sonko sëñ Bay Si Mansour def ko mooy loolu sëñ Bay Si Mansour waxul dara ci Sonko waxul Sonko sax dugg ko sëñ Muntaxa Sonko ba mu fa demee gis ngeen lim ko wan kanam gi mu ko wan carrément moom Sonko neexu ko Sonko neexu ko léegi nag ñun ñooy xaw ñun taalibe yi léegi bu fekkente ni ñun danoo bëgg jël sunu mbir ngeen bëgg wekk ci sëriñ ngeen bàyyi yàlla ngeen bëgg jël seen mbir ngeen bëgg a wekk ci sëñ Muntaxa wala sëñ Bay Si Mansour ñoom nga xam ni amuñu information yi wér ndax sëñ bi xam naa ni yëgul lu xew loolu rek la mën a doon xam naa ni Macky Sall bu xamoon ni kii daganal la góor jigéen Sénégal mu ba Sall yaakaar naa ni sëñ Mountakha bu xamoon loolu xam naa ni yëgu ko sama live bi da ko war a jox sa mu dégg ko moom yëgu ko yëgul ni sa kii daf fi daganal góor jigéen ci dëkk bi yëgul ni makki Sall ba dëkk bi tàngee ba nga xamante ni si maanaam saaga saaganan yonent bi moom dafa ñëw ne Charlie Hebdo la àndal xam naa ni sëñ Muntaxa yëgut loolu ndax waxuñu ko li xew moo tax kon bu leen businessee sëriñ si daal comprendre nga yéen taalibe yi wala yéen bëkk néeg bu leen businessee sëriñ si bu leen businessee sëñ Muntaxa ngeen nekk waa APR wala ngeen nekk ñeneen ñëw nëbb sëñ Muntaxa li xew ndax sëñ Muntaxa li muy waxee nii yëgul lu xew de lan lay yedd Sonko li muy dem nii Macky Sall la ko war a def mais ay ray nit ku ray nit safara nga jëm wala lan Macky Sall moo ray nit ñoom ñooy ay raykatu nit ñoom ñoo fi toj ay nit ñoo fi toj ay këru nit ñoo fi tooñ ay nit mooy li am watawaasaw bil xaqi watawaasaw bi sabre moo tax sama gaay taalibi billahi ngeen xam li xew ci senegal xam nguur gu mel ni Macky Sall même Serigne taxaa bu leen waxoon wooteel leen Macky sàll képp ku ko wooteel mooy nga yàlla képp ku ko wooteel yaa ngi wooteel ku yées ndax yaa ngi dooleel Iblis koo xam ni mi ngi daganal góor jigéen ci dëkk bi koo xam ne mi ngi daganal di tooñ nit ñi ay nervi ñuy dóoraate nañ waxante dëgg dëgg la yàlla bëgg koo xam ne ay nervi lay indi ci dëkk bi ñuy dóoraat Macky Sall tojaa ngeen fi dem ñëpp xam nañ ko kon sëriñ sii nañ leen dégager suñ combat bi moo ñu ànd ak Macky ñu ànd ak Sonko lépp na doon ñoom ñoom ñoom daal nañ toog rek di def ñaan Mbàkke dee leen def doggi rek yaag si ak ñas dee leen def doggi rek ngeen bàyyi ñun taalibe ñu xeex suñu xeex wax dëgg yàlla wax jii ni ma ko déggee tey wax dëgg yàlla man de bokkoo naa démb ci ñu ne woon comme ba nga nee toogal toog gaa yi jóg di xeex nga ne toog leen ñu toog man de démb li ma gis yow damaa ànd yow mais wax jii ma dégg nii ni nga waxee nii man de li ma gis nii mooy askan wi waruñu woon toog waruñu loon sax déglu barki alxuraan kan bi lii saraxee askan wi la. lan la Ousmane Sonko def nañ waxante dëgg waay Sénégalais yëpp ku fi ne Sonko taalibe yeeg ñëpp kuñ fi tudd Ousmane Sonko taalibe yi mer buñ fi waxee leneen ñu ñu ñu mer mais sëñ bi bu waxee lii Ousmane Sonko ñëw di ko wax ni mel ni Sonko assassin la Sonko day raykatu nit Sonko du raykatu nit Sonko nit ku baax la. ku bagg senegal nga yërëm sénégalais du ay tarixa moo tax ñu ànd ak Sonko du leen Sonko ak Guy Marius Sagna man jullit laa xaqan Sonko ak Guy Marius Sagna wallaahi benn lan ci man pour mu dugg ci seen bopp yi ndax fii lu nu yitteel mooy Sénégal bu mu jaam gu dog mais comme am kii dafa bokk équipe bële wala camp bële wala camp bële loolu kenn tarawul ñeent ci sunu kii bii mooy Sonko na nekk ci jaanoo bu ko neexee na nekk murit bu ko neexee na nekk tijaan mais yooyu bul bul bul ko bul ko jéem a gondi Sénégalais yi di fi teg ay murit ak ay tijaan ak xaadar ak ibaad ak amul sens amul sens ndax lii sarexe la nañ waxante dëgg man mosuma dégg sëñ Muntaxa tudd Sonko mosuma toog mu dégg ak moom wax mais ba mu waxee ci Sonko waxi suufal suufee lii daf ko suufeel Sonko waru fa waratu fa dem bu fekkee sëñ bi xam ne lu xew Sonko waratu fa teg tànkam barki alxuraanu karim bu taalibe yi ñëwee ñu ñu kii ngeen diviser ngeen bàyyi kon waa Touba rek ñoom ñu xeex seen xeex bu dee sëñ Mountakha lay dégg ñu déglu sëñ Mountakha waa Tivaouane tam bu ñu defee noonu tamit noonu ñu xam ne affaire bi affaire la Sénégal affaire la chrétien affaire la ñëpp ñi ngi toj këru nit ñi ñii gouvernement yi jubuñu joxuñu ñu ay éducation yu baax ñu bon ñi kenn waru leen jàppale ndax lii jàppale ma ndax lii nañ waxante dëgg lii sëñ Mountakha sa wallaahi nii la waroon tegee Macky Sall wax ko dëgg comme li mu wax Sonko ni mais dëgg yii mu wax Sonko moomu ko lii Macky Sall moo ko moom nañ waxante dëgg Sonko mérito ko xale bu yaru la xale bu yaru la Sonko mérito wut ñu koy toroxal sëñ bi dafa toroxal Sonko dafa toroxal Sonko barke alquranu karim lii booy li am dafa minimiser Sonko mais Sonko Ousmane Sonko mérito wut lii Ousmane Sonko bàyyi léppam ngir Sénégal Ousmane Sonko ñu dàq ko liggéeyam ngir Sénégal Ousmane Sonko ñu jiin ko fi njaaloo ngir Sénégal loo xam ne ngir jàmmi Sénégal ngir murit bi ngir tijaan bi ngir chrétien bi ngir ibaadu bi ngir athée bi ngir ñëpp ñu bëgg a ñëw di di jabali Sonko mérito wut lii nañ waxante dëgg te yàlla tax dëgg la yàlla bëgg Ousmane Sonko mérito wut ni ko sëñ Mountakha maltraité daf ko maltraité barki alxuraan ko dëgg la yàlla bëgg lii rafetut rafetut fenn lii Macky te Macky Sall la ko def lan pourquoi ñoom bu ñuy wax ak Macky Sall ñoom sëriñ yëpp ku ciy wax ak Macky Sall ci ruq la ñuy wax ak Macky Sall kenn du digg li ñuy wax ak Macky Sall li mu def nii lii ci Macky Sall la gënoon yey jëf ti ñaaw jëm jëf ñu taaj Macky sàlla comme nii wax ak Macky sàlla comme nii ñu partagé ko ci réseaux sociaux yi ngeen xool seenu saytaane yi. comme li ma doon wax rek mooy senego.com ci ñooñu laa ko gisee ñu ñëw partager partager vidéo bi partage vidéo bi pour lan pour wane ni sabotage Mati Trois Pommes keroog mi ngi def benn live di jaxase Serigne Mountakha ak Ousmane Sonko lan la wax yéen da ngeen dul seetlu gars yi seen waxi ak seen yàq yi jabalise yi Sénégal ñun dañuy bëgg a defar ñu ànd defar ndoog buñ bëggul ñu dee ci mbuumu jaam di dee di torox ku fi torox du sëñ Mountakha mooy yëkkati xaalis di la ko jox barki alxuraanu karim du sëñ taxaa moo yëkkati ñaari salaamaaleykum jox la ko wala wala wala wala wala sëñ bay Si Mansour yëkkati xaay jox la ko nañ wax dëgg li ngeen di am yéen a koy li ngeen di am yéen a koy job ndax lii nii mu def nii Ousmane Sonko nii lii Sall la ko waroon def buy wax ak Macky Sall ñoom bu ñuy wax ak Macky Sall ci ruq la ñuy wax ak Macky Sall ñu naan sëñ wax naa ak Macky Sall ak Macky ñun dégguñu ko mais nga dem waxi ñaga si mel nii yu dëgër yi boo koy wax danga nga koy wax ki def danga nga koy wax saay-saay mais as gor kenn du ko def nii dañu wax ne dëgg dëgg la yàlla bëgg waaye sama gars yi partage partage partage dëgg la yàlla bëgg watawaasa bi ak watawaasa bi sabri ñun dëkk bi ñun ci dëgg lan far 100 pour cent dëgg la ñu demee moo tax xajuñu fenn barki alquranu karim Sénégal moo ñu ñor Sénégal la xeexal képp koo xam ne def nga gonga ñu ne gonga démb partagé naa benn kii sëñ Mountakha Mbacké muy xeexal waa af di wax sunu mbokk yi nekk Palestine ne nañ leen taxaw ñu ngi leen fekk masjidu aqsa di leen tooñ ma partagé ko ma kii ko ndax damaa aimé boobu li mu wax sëñ bi li mu wax foofu dafa ànd ak moom mais bii nii mu def nii tey dama ni leen ànduma ceeg moom dafa toroxal Ousmane Sonko lii Macky Sall moo ko moom Sonko sàccut Sonko dénkuñu ko dara Sonko moomul réew mi du suñu président suñu président yi ñoom ñooy ñi jiit yi boole ñoog ay gendarmerie gone yi ba ñuy jóg ñu leen di tuur ay ndox bu tàng ñu rey fukki gone ak ñeent ah fukki gone ak ñeent ba tey sa taalibe Ndongo Diop mi ngi ci kaso bi Mbacke ay Aïssa ñooñu war ngeen leen jooyal Ndongo Diop mi ngi ci kaso Ousmane Tounkara mii ñoo ko xeexal ci làmmiñ ci lépp gars yi nee nañ ay ñaan def nga ko ci sa ñaani egg na kon ñaanal Ndongo Diop tamit mi nga xam des na ci kaso bi yow ak sëñ Mbaye Sy Mansour ak yeneen sëriñ ngeen ñaanal Ndongo Diop taalibe sëriñ Saaliwu Mbacke la ñu jàpp ko tëj ko ci liñ ko tëjee réewam la doon xeexal xeexu ngor la doon xeexal ñu jiñ ko ne ab chef de la ab yàqkat la jàpp ko tëj ko ci kaso bi ñaanal leen seen doom yooyu bu dee yéen a ñaanal kii mu génn Ousmane Tounkara mu génn ngeen ñaanal tamit Ndongo Diop mu génn am na yeneen xale yi des ci kaso bi tamit Mbàkke ngeen ñaanal ko mu génn comme te yaa ñaanal kii mu génn Ousmane Tounkara sa ñaan moo ko génn sa ñaan yooyu na génne Ndongo Diop ndax Ndongo Diop def dara Ndongo Diop taalibe sa taalibe la waa kër Serigne Touba la gëm ab murit saadix la mi ngi nii dañ koo tooñ nekk ràpp ci kaso ba Macky Sall bi moo ko def nga comme te ñaanal nga Ousmane Tounkara mu jàpp léegi génn nañu Ousmane Tounkara Ndongo Diop mi ngi ci kaso ba Mbàkke Bala Aysa nga ñaanal ko mu génn ci kaso ba moom tamit soxla nañ say ñaan nga ñaanal ak yeneen xale yu nu jàpp tëj leen Sénégal bu fekkente ni ci ay fen ngeen ko bëgg a def billaahi du dem seen combat bi bu ngeen ci naree dugal ay tarixa ak sëriñ du dem affaire bi lan la ànd xàccandoo dóorandoo Sénégal kese nañu nañ teg Sénégal suñu kanam nañ teg buumug jaam gi suñu kanam ñun sonn nañ tubaab bi not ñu te buñ ñu bëggee not ñu ngi koy bëgg a jaarale ci diine seen affaire diine yi moo leen di taareel waxuma nag bu kenn nekk murit bu kenn nekk tijaan ku mu neex nga nekk murit ku mu neex nga nekk taalibe sëriñ Muntaxa ku mu neex nga nekk taalibe sëñ Bay Si Mansour ku mu neex nga nekk taalibe Baay Ñas waxuma loolu mais li may wax mooy ñooñu bu ñu tardeel ay affaire tarixa kii tarixa kii Sénégal ñëpp a ko bokk ñu ngi toj këru jàmbur yi di toj ñii toj seen kër yëpp koo ci dégg da naan barke Serigne Touba wala barke El Hadj Malick wala barke Baye Niass ñu ngi toj seen kër yëpp loolu la ñuy waat kon ay taalibe maanaam la ñuy toj seen kër yi nguur gi seen toji kër xooluñu kii murit la kii tijaan la kii laayeen la kii baay faal la ñun askan wi ñun ñoo sonn ñun peuple bi peuple bi nag ay taalibe ñoo ci ëpp maanaam Sénégal boo fi xëccee ñu dul taalibe bariwut kon ñi gën a dee kon mooy taalibe yi liy metti taalibe yi lay dal kon taalibe yi yërëm leen seen bopp ngeen xeexal seen bopp sëriñ sii na ngeen leen dégager ci combat bi dañuy taateel dëgg la yàlla borom bi subhanahu wa taala bëgg watawaasaw bil xaq watawaasaw bi sabr borom bi subhanahu taala wax na ko ci alquranu karim ndeysaan sahaaba yi buñ masaan toog ba pare ñu waxtaan ba noppi ñuy fàttalante ñu ne ana lan la ñuy fàttalante ñu ne nan fàttalante saa muy yowmal xiyaam maanaam lan la ñuy fàttalante mooy lan audu billahi min alshaytani rajim bismillahi rahmani rahim wal asri inna al insana la fi xusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil xaqi wa tawasaw bi sabr loolu la ñuy dénkante ñun nag xeex bi yëpp maanaam xeexu yërmande la nekkul ni danoo manqué respect taalibe bi ndax taalibe bi laay xeexal wala dama manqué respect tarixa murit wala dama manqué respect tarixa tijaan ndax yi moo ñuy taadeel nit day ñëw di wax dëgg ngeen ñëw bëgg jëmale ci tarixa murit wala tarixa tijaan wala lenn mais ci ay action la ñuy wax lépp loo xam ne lu yàq dëkk bi la man su ma naree wax makki sàll ma ma wax Macky Sall def loo xam ni maanaam baaxul ci réew bi ma ma wax ko léegi keneen sëñ Mbay Si Mansour wax leen wala sëñ Muntaxa wax leen man nar ko bàyyi wallaahi ma noppi dama ne leen 100 pour cent dëgg la ñuy demee dëkk bii waxante leen dëgg ngeen dund dëgg depuis jamonoy année 60 ba léegi sëriñ si ñu ngi fi depuis année 60 ba léegi dara baaxut takk ñu jaam maanaam dëkk baa ngi nii sawaay mooy loolu ay njiiti bon lañ am dëkk bii amul jàmm dëkk bii sëriñ si bu seen ñaan si maanaam mi ngi dal nan ñu ñaanal waay nan nit ñi liggéeyul xëy mi amut dëkk bi amul jàmm ku sa doom génn ñu dagg bopp bi dëkk bi mitti mitti goo xam ne mooy loolu Macky Sall nag jël ko nga taaj ko Mbàkke yaag sëñ Mbay si ak ñeneen ñooñu ngeen jëw ngeen teg Macky Sall mi ngeen wax ko dëgg Macky Sall mi ngi yàq dëkk bi de mi ngi taal dëkk bi surtout côté nervi yi gone yaa ngi jooy rek te ñëpp ay taalibe la boo ci déggee barke Baye barke Maoda barke bàmba maanaam yooyu da ngay dégg ñun taalibe yi sonn moo tax suñu sëriñ si yëguñu lu xew sëriñ Mountakha yëgul lu xew sëñ Mbaye Sy Mansour yëgul lu xew ñii yëguñu dara lu xew ndax ni mu ñëwee ni di yedd Sonko mel ni Sonko ab raykatu nit bi yëgul lu xew jarul topp jarul déglu ci loolu ci wàllu diine gi nag wàllu kii bi yéen ñu ko gëm mu nekk seen sëriñ maanaam gëm leen ko mu nekk seen sëriñ waaye liy saraxe askan wi moom muy mbàkke muy si muy mbénd muy préra lañ ci yamale barki alxuraan dañ koy teg fii wax ko kon ma ñëw kon indi naa leen xasida sëriñ bi li mu wax te loolu la ñuy xeex ndeysaan يا مالك الملك يا man جل أن قواد إرم جميع الورى يا هاديا ndeysaan waa ngeen taalal loxo yi ñu tëj mbokk taalibe yi maanaam dëgg rek la yàlla borom sant la bëgg waxuma pour tuutal kenn ngeen baal ñu àq ci julli gi man baal naa leen àq képp ku ma tooñ baal naa la ku may waaj a tooñ baal naa la ku ma saaga baal naa la yàlla bu yàlla mbugal nit muy jaare ci man yàlla bu yàlla teg nit ab natt muy jaareel ci man lépp billaahi jàmm rek laa leen yéene taalibe muriti yàlla na ngeen am jàmm am xéewal ami sutura taalibe tijaar yi taalibe ibaadu yi taalibe chrétien yi taalibe ñëpp yàlla na Sénégal am jàmm saawaan baawaan sama gars yi ngeen baal ma àq baal naa leen àq yàlla noonu yàlla boole jéggan ñu fekk ko ay déwéni déwén dem ba maanaam ñu sànni ko dégagé ko fële seen Medoune Diop Watawasaw Bil Haqqi ndeysaan 100% dëgg saan ñu ñaan ci xasida boobu Serigne Touba Mbacke saan doon ñu koy faral di tëjee mu doon lu am solo bismillah ihdi jami'ana siratal mustaqim wa bi kullana bila saqim